day.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 أساتذتي أفاضل أه، فهذه فرصة من أثمن الفرص أود أن أنتهزها لأتباحث وأتدارس معكم أو على الأصح لأراجع معكم خلال هذه الأسطر القليلة موضوعا اجتماعيا هاما يدور حول التعاون في الإسلام لأنه موضوع يمس حياتنا اليومية وأبدأه بقوله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إيه لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فإن ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها nuyoo sunna la waaye fay nuyoo farata la soo ko defulee da ngay am bàkkaar te yéenewuma leen ko ak nii ngeen jongomaawee wax dëgg yàlla su ko defee ginnaaw bi ñu musuloo ci shaytaan allahin moom mi nga xam ne tout le dafay mel ni ku lay dimbali fekk mu ngi lay lor toujours bëreetu seytaane day nuru ndimbal aye bu ngeen eggee ba ca cëppaa ndaw ja nga xam ne daf lay loo ñu sant borom bi subhanahu wa taala wala in shakartum la azidannakum mu ne fu ngeen sante rek ma yokku leen te nag war nañ koo sant ndax bu neexoon moom tey ñun ñii fi toog liste bee ñu bokk ci defuñu lu tax ñu dem ñun defuñu lebaluñu yàlla lu tax mu bàyyi ñu fi ba koor gi ñëw ba ñu tasewaat ak anniversaire u Badar kon war nañu wax alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi li tam ala ni'matil islam ñu santaat yàlla moom nga xam ne moo ñu def ay jullit ñu bokk ci ñi nga xam ne itam kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ñu bokk ci xeet wi nga xam ne moo gën ñu bokk itam ci taseeg ki nga xam ne mooy ki tax daj dëpp gi mooy ki nga xam ne huwa munqizul insaaniya mooy ki nga xam ne lawlaa tashahudihi maa qaala la bu dul woon ashadu an laa ilaha illallah moom sayiduna muhammad mosoo koo diis lu mu ne la déedéet loo ko wax rek mu nangu dem ci ba mu jeex takk dimbali la ba mu jeex takk dimbali la fii dimbali la fële moo tax ñu ne su dul woon ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan bas parce que bu ne ashhadu seede naa an laa ilaha illa amul kenn ku ñuy jaamu illa boobu moo naan déet moo ko ci settee ci boobu rek lay waxe déet bu du loolu ñu ne kon musul wax déedéet ñu julli si moom ndax yàlla julliwul wóorul génnewul azaka ajiwul makka benn jaamu kese la bokk ak ñun mooy yaa ayuhan naas inna allaha wa malaikatahu ñu ne ah, mu ne yusalluuna ala nabi man yàlla ak sama màggaay ak sama teddange maa ngi julli ci kan ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa kon nag hee yaa ayyuhan naas information la sallu alayhi wa sallimu taslim julli leen ngeen texe seen demu àjjana yomb ngeen dugg àjjana fii ci àdduna dugg àjjana ëllëg àllaaxira ndax ku ma dugal àjjana fii ci àdduna bu ëllëgee boo ñëwee àllaaxira dama lay ubbilaat bunt bi ñu ne nu mu mën a amee dem ngeen màkkatal mukarrama dem ngeen madinatul a su ngeen eggee si masjid an nabawi sharif foofu ma àndoon nag anamu monsieur aj waay sama sama seexu aj la dangay dox ba si yàgg rek oustaz ngay dox ba si yàgg rek nekk biir àdduna wàcc si hôtel bi cinq étoiles di lekk yaa ngi si biir àjjan ñu jekki-jekki rek ngay dox gis ay tapis yu rouge nga jekki-jekki rek su ne ràññ sa kanam mul xubbatu hadra nga gis ñu bind ma bayna bayti wa min bari rawdatun min riyadil jann eh yaa ngi woon biir àdduna yonent bi neena la arrêteel fim nek nekk dugg nga aljana nga ñëw naa ko alayka ya rasul allah assalamu alayka ya khayra xayra assalamu alayka ya man arsalahu rahmatan lil alamin allah akbar soxna Zeynabu bërëb boo miin la ak ajaama jigéen jaas kon kooku ñu yàlla xéewale xéewal boobu ñu yàlla defal mooy xéewal bu mag bi nga xam ne war naa tax ñun fu nu toll ñuy wax alhamdulillahi rabbil alamin ñuy sant yàlla ndax yàlla kat deful benn jaamu bu dul julli si yonent bi su ko defee damay jël nuyoo bi lem ko sof ko ci nuyoo oustaz al akbar conférence nga lu rëy ah oustaz man damaa defe ne sa jaru woon may jël ndax wax ji dafa ferenkulaayu ndax kenn mënul séparer thème bi ataawunu ak asilm ndax dimbalante ak jàmmoo ñoo ànd ndax bu yàlla borom bi subhanahu wa taala waa sama copine ñoom ni ñu nar dina neex de waaw macha allah yàlla na yàlla fay waaw yéen moom dangeen ah sama goro ñëw na de waaw sama goro ngoog aja fatkan waaw <laughs> macha allah macha allah macha allah waaw ana aja Zeynabu kaay kaay kaay kaay kaay defar lii waaw xaaral ñuy jox ko Zeynab ndax moom euh, dama ko wóolu sama sama bras droit la mooy sama ministre des finance ah waaw sama xarit yi daal li li ñu nar li ñu nar oustaz saa gis nga de dañu solidaire de gis nga commencé nañu taawunu bi xaatim <laughs> su ko defee ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu ne xam nga nag su may gis xaalis bi fan laa yemoonati sax ndax maa ngi wax mais maa ngi waa walla xaalis bi ñaata la non xaalis baaxul waay gaaw gaaw eh, eh, xoolal ñoom Fatou Diom Adja Fatou ga waaw gaaw gaawantu leen si xaalis bi parce que su may gis xaalis bi damay jaxasoo ndax damay bëgg di wax di calculer waale xaalis bi ñaata la waaw Adja Khady Samb loolu moo tax nag moom ñu ñu ñu ñoom dañ maa gaaw a songu sax yéen da ngeen waroon a xaal ba ma xaalu ba ma dugg ci thème bi ba ba ba dugg génn ngeen ñëw baatal eh, sama waa daayira ngoog <laughs> sama waa daayira ngoog namm naa leen tey ñu def thème boo xam ne dama ne oustaz li mu conférence ke euh, balaa kenn conférence ati tàggu la ana imam Ousmane Sow mu ngi ci ginnaaw mu ngi toogoon fii ndax euh, macha allahu taala damay jël nuyoo bi suuf ko ci ndax su ma nee tey ah madame imam a ngoog su ma nee tey damay lim di nuyoo si góor ñi bu ma commencé ñu si ëpp seeni soxna sama ay xarit lañu <laughs> sama waa daayira ñëw nañu waa daayira Rabiatul Adawiya waaw waa daayira Rabiatul yaa ngi nii de bu sëñ Abdou Aziz da baax mu ngoog su ma nee damay lim góor ñi presque ñi fi nekk ñu ëpp xamante naa ak ñoom ndax seeni soxna sama ay xarit lañu am na ci léegi sax ku ci tooyal sama xol maa ngi koy laaj soxnaam waaw waaw maa ngi koy laaj soxnaam mu ne ma dafa noppalu te sama xarit la woon te yóbbuma ko mais ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla koy yàlla yokk leer dama ne ñun lan lañu def ba yàlla bàyyi ñu fi ñu kii ñu ñu ñu ñu ñu dund fii te nee nañ list bi 130 136 mbokk yi kan moo koy 137e allahu alam kan mooy nekk 137e bi te ñun ñi ala kulli xaalin am na koo xam ne moo fi war a nekk cent trente-septième bi te kenn xamul ci ñu kan la kon lan moo ñu war ñu xool liggéey bi nga xam ne suñ ko defee yàlla borom bi subhanahu wa taala yërëm ñu dugal ñu àjjana tey la lan bésu badar azwatu badar nga xam ne mooy deuxième victoire ci l'islam ndax

dañu am problème de amna yenn milieu yo xamné suñu démé suñu waxé fu ngeen dëkk ñu né Scat urbain duñu HLM Grand yo ah adan day jóg waaw waaw wa i sama yaay <laughs> suñu né wa fu ngeen dëkk ñu né ñu né Scat urbain mané ne dëkku leen benn Scat urbain HLM Grand Yoff ngeen dëkk <laughs> mais pour wax leen né yéen HLM Grand yo ay modèle ngeen ñepp bëgg dëkk ak rawati na wallahi lazim yalla seede ni may wax dafa am bés ma ñëw fi di julli juma parce que magasin bi sës fi Chabina Couture sama dom moko mom bi ngay jëk jot ni ma dugg fi julli euh, soxla japp ma dem si morgue bi may xol morgue bi ba si yag mané man morgue bi rafet na dé est ce que man suma guddé all fi est ce que duñ ma indi fi ndax dafa melni suñu morgue bé ñun dafa xawa rafetul bu baax HLM Grand yof xamna mom ñoo ñooñu samay doomu bàjjen lañ parce que kat man bokku na ci ñi ñi ñi initié ñu tabax ko mais li leen yàlla may fi ci terrain bi ak ak ak géographie bi ni mu toxawé ak kër yi ko wër ak terrain bi écart boobu nga xamné yàlla borom bi subhanahu wa taala defal na leen ko lolu xewal la bo xamne yàlla mom la neex mu jox len al buqa akbar al bari al mubarak est-ce que xam nga oustaz am na koo xam ne mu ngi dund amul sax cër bàmmeelam nekk ci suuf moom kenn du gis bàmmeelam day dee ci ndox mi walla rabu àll lekk ko walla walla walla mu lakk ba nekku doom walla mu deewee bitim réew duñ ko mën a indi ñu def ko cendre def ko ci butee kenn du gis bàmmeelam kon yow bu la yàlla mayee kër nga immeuble ba mu baax nga war a wëlbatiku nag ne néegu yàlla bii il faut que ñu jàppalante bi ba mu mel nii te seen néegu yàlla bii nag rusu leen fee recevoir kenn lu nit ndax man xawma woon ne lu toll nii am na fii wax dëgg yàlla dama doon romb dinaa julli ci suuf côté jigéen ñi kon fii ñun jigéen ñi ñoo ko moom ah dama ne ñun ñii nag sas nañ ñu de ndax euh, dañ ñu doon tere jàkke yi ndax dafa am nag nu ñu mel ñu xëy suba yonent bi ne jigéen ñi bu ñu ñëwati si jàkke yi ñu xëyaat suba Aïcha ñoom plaidé ko ak ñoom ndeysaan Hind bintu Utba dañ doon gisanteeg yonent bi su mbir amoon ñu jàkkarloog yonent bi yonent bi mosu leen a tëjal buntam dañ doon discuter ak moom lépp lépp lépp bay discuter moom sax si mbiru janaaba di discuter ak moom si mbiru régal di discuter ak moom ci mbiru deretu di discuter moom ci lu gën a xóot loolu yonent bi léeg-léeg mu am genu wax leen yenn yi wala léeg-léeg mu ne leen expérience mayuma ko parce que dunduma ko mu yabal leen ci yaa Aïcha moo taxoon mu ne woon xuzu nisfa diinikum an hazihi al umayra ñu ñëw ci thème bi nee naa tem bi oustaz traité na ko ndax thème bi moo mel noonu amul benn bindkat buy bind ci taawunu te du ci boole jàmm amul kenn kuy bind ci jàmm te du ci bàyyi boole mais oustaz xam nga dañuy dem ci aaya bi li yàlla wax yàlla dafa wax ne yaa ayyuhan naas inna ko min zakarin wa unsa mu ne wa jaalnaakum wa qabaila li taarafu mooy yàlla dafa ne ee eh, yéen nit ñi bind naa leen ngeen nekk ay góor ngeen nekk ay jigéen waaye nag xam ngeen lu tax li taarafu li taarafu lan lay firi mooy ngir ngeen xamante déedéet li taarafu boobu haza tafsiruhu laysa li taarafu bal li taawanu yàlla li mu soxla foofu mooy solidarité am ci suñu biir ndax solidarité moo fondement l'islam keroog bi yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam a jógee xaaru Hira ñëw ci yaa Xadija su amul woon ku ko dimbali fala lislaam di yem walla mu alko parce que bi mu ñëwee rek li mu njëkk a wax mooy zammiluuni zammiluuni ah zammiluuni zammiluuni sàng ma ñu ne déedéet daf ni ko nëbbu ma nëbbu ma làq ma ndax li ma gis tey Sayyidatuna Xadija ne ko ma làq la Sayyidatuna Xadijatu sànni xelam dal ne ñaata at may investir di xaar koo xam ne mooy nabiyu haazihil umma ndax dama ko jàng xadija daawul daw jàng da doon déglu ay kuuram ca waraqatu ibnu nawfal mu jàng mu yëg ne am na ku góor ku judd koo xam ne am na ku góor ku judd koo xam ne léeg mu am vingt cinq ans te mooy nekk yonant xeet bi te Xadija nee sëy naa ñaari sëy tënj naa ñaari yoon am naa ñetti doom sama taaw am na fukki at juróom te kooku vingt cinq ans lay am te kooku mooy kan il faut ma dem dugg ci kàggu yu wër wër ko wër ko wër ko muy wër di gëstu di gëstu ba dégg ne am na ku ñuy koo xam ne critères yi mu xalaat daje na ci moom ndax papam yaayam papam day génn àdduna bala moo judd yaayam bu ko yoree juróom benn at day génn àdduna maamam dina ko yor ñaari at day génn àdduna papam rakku papam mooy des ak moom te li muy nekki kooku du ci nekk premier métier moy day sam huwa raa'il anam bala nga sam ay nit koku dina def deux voyages yo xam sa yu demee dina gissanté ak labbi photographe s'il vous plaît man dama dama dama nax motax su ngeen doxé sama kanam rek da ngeen may perturber il faut que ñu déglu xamné li ñuy def daf leen ñor mais daf ma ñor Adja Ndeye Diop mii bi may woo di ma wax conférence bi maa ngi États-Unis d'Amérique nekk di faju ma ne ko dinaa ñëw moo ma motivé ba ma jël yeneen date seen date bii moo tax ma ñibbisi te sama ay rendez jeexul kon ñor na ma li ko def nag mooy dama fi bari lu bëri lu ma mënul séddoo sama goro ngi nii toog Adja Fatou ba ma ko joxee sama doom ji ba léegi ñibbisiwul ca kër ga ne ma meer bi bu ndoxataal na ma ndax man nag lépp laa bu ko sonaloon ba tey sambu si naa ko ànd ak waa Arafat ak waa HLM Grand Yoff xam nga yéen waa Scat Urbam dafa am nu ngeen mel waaye ñun waa Grand Yoff ak waa Arafat ma ànd ak Ndeye da ngeen di ñëw naan non on ne comprend pas quest eh, xam ngeen lan la <laughs> ñun loolu lañ leen di wax mais heureusement jaaxaluma benn yoon sama rakk ngi nii toog Seydi Sow motax duma lim parce suma limé du sotti parce képp ku nek fi ci yéen wara julani tahabba fi llahi ijtamaa bihi wa tafarraqa sab'atun yuzilluhum llahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu ñun ñoo sopanté bëggante ba yàlla ne ñun ñi yawmal qiyamati verre blanc bi man ma def sama touti verre di tax kasse ko góor ñi daal di tolo eh suñu góor ñi nag macha allah taala fii ne defe naa bu ñu fi jógee ba defe naa dinaa leen wutal ay ñaareel de ana ana ana ñu amul ñaareel am na ñoo xam ne ñu ngi naan si soxna si ne mu ngi bëgg a yàq conférence bi ana aawooy si dañoo mën a sakkan nag <laughs> yi moom dañu xaw a sakkan max macha allah sagal ngeen seeni jigéen nii la man amila salihan min zakarin أو أنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يالا نينا مباخاني بي اك مسور بي بونو اندي ديمبالانتي ديفار ادو تي بونو ديفاري ادونا جابلانتي الله بونو ديمي يوم القيامه دانيوي ديكي وات رك دادي نيكات بن moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nit dina am ci dimbalante lu mu am ci julli ak wor xam ngeen bokk yi jàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba fa julle ben julli ñatt julli ngay am ha mil ana aja kharifal ana aja xari mu ngok so julle ben julli mil lañ lay fay soo jullee ca Kaaba nga nag xam ne mooy kër yàlla ñaata ngay am cent mille téeméeri junni lañ lay fay jonent bi ne gis ngeen nga dox ci sa yitte mbokk sa mbokk bu am problème nekk ci cas social nga jàppale ko ba mu génn ci moo gën nga julli ci sama jull ci sama jàkka ji boole ko itikaaf ak woor pendant junni at ci dimbalante moo tax imam ban ndeysaan <laughs> yàgg na du tey de ca baraag ba du tey de booba kii di filme nii su ma ko téyee si loxo dama koy sànni sama ginnaaw rek boot ko mu ngi nii toog doomam ji doon ji doon ji ko doon Bachir boobu xëj na ay feragul dama ànd ak imam ñu cheminer lu yàgg ba Xalifa Sall fekkuñu fa ca étage ba ñu lijjanti terrain bi mu jafe lool ba tey alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na jàmm yàgg yonent bi ne nga dimbali doom man faraja lil mu'mini kurbatan farajahullahu kuruba dunya wal axira soo dimbalee nit fii benn dimbal yàlla nee na dinaa la dimbali fii ci àdduna waaye allaaxira bu ñu ñëwee mu tar lool ñu xool julli gi ça ne va pas ñu xool koor gi mu taq suuf ñu xool aj gi xool azaka bi xool yépp mu xaw a lëjëm ndax bàkkaar yu bari lan la ñuy xool bu boobaa dañuy xool benn xettali boo musoon na xettali benn doomu aadama yàlla ne xettali ga mu ko xettali woon tey dinaa ko xettali bi benn xettali amul bu dul sama bos coow lee bari rek ابن دم يوم القيامة نيو خامنا كين رك امو لا اله الا الله محمد رسول الله يالا رك ابار يالا الشفاعة بي يوننت بي اك نينين ني موي اوتوريزي تي نينين ني موي اوتوريزي سي دوماج جوخيوول ليس بي دا نيو فوك رك دا نيو ياكار جوخيوول ليس بي لك امنا العشرة المبشرون بالجنة amna na fukk ñoo xam ne yàlla nee na ñooñu yonent bi na leen bégal ne ñoom nitu àjjana lañ à part kenn la demam foofu wóoru su sudul ci ay fee yonent bi nee na damay dugg àjjana rekk gis kuy buruxul bëgg ma njëkk a dugg àjjana ma ne mais Jibril kii kan la mu ne ko kii benn jigéen la woon boo xam ne boroom këram dafa jaboot ak moom dee bàyyi koog njaboot gi mu def sacrifice yore njaboot gi tax mu ne dootuma sëy dootuma ànd ak benn góor sacrifié naa sëy ak njaboot gi ba ñu màgg tekki ma ma jaamoo ko yàlla di ñaanal sama borom kër yonent bi nee na ëllëg su may dugg àjjana dama koy fekk mu jiitu ma duggu ma ni Jibril kii kan la mu ne ma kii la benn veuve la woon ñu ne at kan mu ne ak ki nga xam ne daanaka ñu baal ma ci kàddu gi mais c'est une prostituée mais benn bés mu dox màndi di kayan kayangi jékki-jékki mar mar mar mar mar daal jël dàllam di ko naane xam nga buñ tolloo foofu ñoom lu nekk la ñuy def mu naan ba pare wëlbatiku si wetam gis benn xaj xaj bi mara mara mar bay yeey suuf si mais mënul wàcc ci xur bi parce que xóot na te amul lu mu ko tànqee ndaw si jóg jël dàll bi di ko tànq di may xaj bi di ko tànq di may xaj bi ba xaj bi màndi yàlla ne yoon malakay daw leen lu mu defoon ci lu bon effacé leen ko yamhullaahu maa yasaa wa yusabbitu ngeen bindal ko lépp lu baax ëllëg bokk na si ñi nga xam ne kenn du leen jiitu àjjana te musul julli musul woo kan la dimbali xaj irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama rawatina nag doomu aadama te nit nag boo koy dimbali danga koy dimbali ci yiw danga koy dimbali ci mbaax danga koy dimbali ci mu sori lu ñaaw dangay ngay dalal xelam da ngay ak moom ci yiw wa taawanu alal birri wa taqwa wa taqwa boobu yàlla nee na na dimbalante ci mbaax ak at taqwa at taqwa mooy lan ah at taqwa mooy lan waa daara ji ana ana jigéen ñi a taqwa mooy lan ragal yàlla léegi ñu nekk si weeru koor yàlla borom bi subhanahu wa taala ne kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala lazina min qablikum ñu ne ko lul tax mu ne laallakum tattaquun koor mooy examen bi nga xam ne ci la yàlla di examiner doomu aadama mu xam ne moom kese ak yow kese la moo tax mu ne sànq imam wax na ko asawmu lii wa ana ajzi bihi koor man kese la te maa koy fayal sama bopp su ëllëgee am na benn porte officielle bu ñuy wax baabu rayyaat woorkat yi doo nga fay dugg bu ñu paree ñu tëj ko kenn dootu ci duggati yàlla ne li tax ma sant leen koor ngir ngeen ragal ma yàlla dafa bëgg ñu ragal ko wax ay aka jara ragal moom aka jara ragal ndax day am bés bu muy toog ci saisam boobu ñuy rang di ñëw kenn par kenn wa kullun aatihi yowmal qiyaamati farda kenn par kenn bu kenn xalaat ne ay milliards yi doomu aadama ñoo ñëw ba tax ñu ne yàlla du ñu mën a xisaab ndax du ko tal ak am jot te boo ñëwee bés boobu mbokk julli yi ak a jara bàyyi xel bés bi ngay jëkk a jàkkaarloog sa boroom ci jëmmam mu toog di la déglu sa jër yépp di nettali mu toog di la déglu rekk léeg-léeg nga gis ku ko jub si mu bëgg ci yaa ayyuha yaa ayyatuha nafsul mutmainna waaye nag léeg-léeg nafsul lawaama ñëw yàlla ciipatu la du la bëgg a dékk ndax bu doon sagoom moom ni mu def ci ñun ñu amoon loo xam ne lu tax ñun bu ñuy ñëw ci moom dañuy mel ni sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu tax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yàlla ni mu bëggee yonante bi su doon sagoom ñun bu ñu ñëwee dañuy mel comme moom ndax moo tax mu ne ñu moom mooy seen miroir nga ñëw sa loxo yépp di wax lu kenn xam tànk yi di wax lu kenn xam bët yi di wax bakken bi di wax mm, di <laughs> mm, wax day wax <laughs> motax yàlla du morom de bés boobu lo beug def ci aduna wala nga beug ko def nit na nga bàyyi xel bés bi ngay njëkk sek mom te alakhira ñëw te alakhira ñëw te bobo fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi ndax bu boba ñaari malaka yi nga xamne kérok bi nga majoré bi nga majoré la wax lañu ànd ak yow ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid chaque jeudi soir ak lundi ñu yóbbu sa rapport rapport yoy lay teklé suñu paré def ko ci ben clé yàlla téy clém tok di la xol disque dur bi di dab cër bu nek di xulo ak moroomam ñu nan tànk yañu fa yóbbu won tànk ni way may ma jàmm bima len leen fay yóbbu ana xel ana bët ana bakkan ku nekk di xuloog moom da yonent bi di wax ne masalul muminina fi tawaddihim wa tarahumihim ka masalil jasadi ijashtaka minha udwun tadaa lahu sairil jasadi bisahari wal huma nit jëmmu doomu aadama ni ko yàlla composé noonu mooy dundam mooy yaram bu benn bu nekk moo fi bàyyi moroomam bu ma xoolul woon noyyiwuma làmmiñ buusewul xel xalaatul loxo yi di kii tànk yi ñëw ma sol yére ñëw duma mën toog fii kon yaram ñëpp a ànd ëllëg yowmal qiyaamati itam dimbalante boobu ñu dimbali woon ci al birr at taqwa ci ragal yàlla ak mbaax noonu itam lañu tere ne yaram woowu nañu mel ni comme moom ci solidarité bi ñuy jàppale doomu aadama pour mu mën a bouger waaye nag wala taawun ala ismi wala udwan pas noonoo mais noonoo fu muy commencé mooy yàlla jéppi la premier li nit war a gën a ragal ci àdduna du nit ni yow mere la mais li nit war a gën a ragal ci àdduna mooy moom mu wóor ko ne tey def na lu tax yàlla jéppi na ko moo tax sarax baax ne nañu sarax rekk bu yàlla am na lu muy mer sarax rek moo mën a tax mu fay meram moom kon nit ñi nañuy góor góorgóorlu ci sarax yi mu bañ a nekk nag saraxu bidaa saraxu sondeel saraxu nen saraxu ay puso saraxu ay guro saraxu ay ginaaru bu weex jëf yaay booy saraxu ay ay ay xawma xaw yi ba de ñëwoon na ma ne ma Seyda xamoo fu ñuy jaayee kii jessi mané ko luy jessi jessi numu tuddu sax ci tubab crocodile mu ma crocodile bu bleu de la ma sëriñ di laaj té néna ma tamba lañ koy jaay mané ko crocodile waxuma la muy bleu xam nga kooku naral na ko musiba mu ko bu fekkee nak mëno sax am way jo xamné ma nga nek ak yu bleu mais mais tamba lay am ca park ba amna mais nak at mu nek ben rek jutt booba xóoyal nañu bula ba waram benn crocodile bu ndaw bula ko ba mu wow bula kanaara ba dugal ko ci horaire bi mu ñëw Dakar mais dañuy fowe moo tax yàlla ne wala yuflihu saahiru haysu ata te ñun suñu dimbalante yépp ci gën a gaaw ji bi takk na takk na dafa takk ñaareel am naa wujju ah jógal jógal laa wax doomu ndey dangaa sàkkan jógal ngeen daal di ànd dubb horaire wàcc dubb sareet ngeen dem waaleykum salaam ay waaye sama khalid, tey sama khalid rek laay gis macha allah macha allah yow nga dugg sareet yóbbaale mburu nga dem ci ki nga xam ne moom nga ne fa ngay wuti wàllu sa xarit beey nee na daf lay wutali ku la ku ko jàppale néeg ba mu dëkk doo fa dugal sax sa xar seen mbaaru xaru Dakar moo gën néeg ba koy fekk nga fekk ko ci lalu weñ boo xam ne yow bu la nee toogal sax doo mën a toog ndekki jot nga gisee ñuy ndekkee mburu moo xam ne ci horaire bi lay ñëw am na fukki fan bu añ jotee ñu xooyal cere ñu ne kooku moo la war a defal lu tax sa affaire baax mu jàmbal la ay ay xob yu vert yu jaune ak yu bulaak mélangé la ngay sangu mu lay wax loo déggul léeg sax ñu dugal la ba dugal la ci lu xaram parce que dañ lay dugal ci loo xam ne des dañ lay laaj sàngara wala ñu ne la li mu lay wax mooy bu bu neexee yàlla ak bu neexul yàlla <laughs> booy jóge foofu dugg oto egsi woon nag looy wax yàlla boo demee te ça arrive man xam naa sama ñaari ñoo xam ne xam naa leen dañu demoon wuti sëriñ du waññeeku dugg set place kenn xàmmeewu leen ba léegi kenn sangu leen boo demee looy wax yàlla moo tax ñu ne loo bañ dee fekk la ci bu ko def ñu ngi nii ñun ñëpp ay seet ñun ñëpp non ñii sax tane nañu góor ñi mais ñun jigéen ñi dañoo ñeme seet te saa yoo seetloo 40 jours loo jaamu yàlla bu fekkee ne danga koo gëm loo jaamu yàlla yàlla du ko naw waa 40 jours yooyu boo ci demee looy wax yàlla te almawtu laa yati illa baxtatan te dara dugal lu la si bu du sa benn xarit ne na sa doom jii amul liggéey ba léegi moroomam yëpp sëy nañu sëyul non il faut nga jóg ci sa bopp ah il faut nga fan ngay jóg dimbalante boobu mooy dimbalante bi yàlla di wax ne da ngeen di dimbalante ci bàkkaar ak dimbalante ci maa koy ma jox ma kaa bi maay dem ba xam yaayam nu mu tudd maay dem ba xam fu mu dëkk loo koy doyee looy doyee fu mu dëkk looy doyee fu yaayam nu yaayam tudd loolu dafa nekk ay ndimbalante yoo xam ne du ndimbalante léegi loolu nag dama ko njëkkee parce que damay ñëw nag ci yu neex waaye cey booy xewle ba ngoon gi ñu seet si la ci guddi gi daal jël li ñu am yépp daal ñoom ñoo ñoom ñoo ñooñu suñu ñooñu daal di ñoo taxaw aja aja Faat Kan moo la dimbalee téeméeri junni aja kii nee na kii moo ko tàmm mooy doomu ndey moo la dimbalee un million ñu di ko lem di ko lem di ko lim ba mu nekk vingt à quarante yenn saa yi mu dem ba cinquante ñu jox la ko ne la say doomi ndey ñoo la ko dimbale loolu mooy wa taawanu alal birri wa taqwa loolu neex na sa doom di takk jabar kazalik sa doom ñu koy takk kazalik mais c'est dommage fan lay mujj buñ la ko dimbalee ba pare au lieu nga investir ca lu jëmmal jàppale ñooñu di jeune marié yi amaguñu kër amaguñu oto liggéeyaguñu amul dara lu ñu denc pour seeni doom bokkuñu assurance nga làng nag ne tey ma wane sama bopp tànt suma bëgg nga tànt koñ bi yëpp baare oto yi commande sa lekk yëpp ñu ñëw ngay pasar pasari di pasar pasari di jokkalante di waxante ñuy waxante loo xam ne lislaam gërëmu ko bu ñuy joxe benn sër wax ca wax ca wax ca léeg leen nga gis ci mag mu xaw a sàgganu ba génne ay cëram ci kanamu suñu doom yi di ñu filmer ak xale yi nga xam ne ñu ngi seetaan ngay wax yenn wax yi di taasu yenn taasu yoo xam ne rafetul ñu daal di pare lañ la joxoon yépp ñu ne la njaag nangul la nga naan dina ko nangu dina ko nangu yooyu na fi na fi xorom dina ko nangu noonu la dina ko nangu dina ko nangu ñu ne la toog nga ne yooyu naa fi kaani macc naa fi xorom dinaa ko nangu ñu ne la jeeg na coquette na caraxu na caraxu bu doom ya màggee mu sol coquette coquette yoo xam ne da koy sol ci guddi gi sa tànk bi dam ndax liy dam sa tànk mooy lépp luñ la indi ci teraanga bala nga foo jógee nga tasaare waat ko séddale ko nga dese bor bi masa yu fiit boobu dimbalante leen lay jëriñ te booba kër gi eggagul fayaguñ ko moom amagul fu mu dëkk suñ ko dajale woon yépp jël loolu muy 20 millions wala 10 ñu jox ko xale bu góor bi ak xale bu jigéen bi ne leen dem leen banque de l'habitat déposer ko fa apport pour am fu ngeen dëkk baax na dimbalante bi am na njëriñ mais dimbalante boo xam ne suñ ko dimbalantee ba pare te nag du maye de suñu dimbalante yooyu léegi dëj sax dañuy bind jaxal yi dëj dëj dëj laa wax dañuy bind jaxal yi mus ngeen koo gis wala musu leen koo gis ah? dama leen di laaj dama leen di laaj ndax dëgg yi dañuy bind jaxal yi wala duñ ko bind léegi yow Adja Xadi mii laa layee la sama doom indi naa ceenu or indi naa fukki sëru njaaku indi naa fukki pis ba euh, kii basin coupon ak ay brodé yëpp jox naa ko ko un an après sama doom di sëy lu may def luñuy def sama dom bob di sëy numa koy def kuma koy ndeyale dama nan la saan wi day delu ndax doo ma gën gore ah du du dalaa gën a gore de la nga dugaloon mom ngay récupérer wat eh bu fekkee am ko واحرص على حفظ القلوب من الأذى فرجوها بعد تنافر يسرب إن القلوب إذا تنافر ودها كسب زجاجة كسرها لا يسرب nooneel daal di dugg xuloo am nga ne ah xanaa kii seetaanul vidéo bi ma ko doon yebbil sa xarit di ñëw nag dara la waa nga waaye yu kii moom ku mu yëpp kenn amu ko nag góorgóorlu doo nga fi nekk lii du li nga ko doxoon ka gën a kii nag ne la yónni ma yónni ko mu ne waa soxna si ah yow de sa doomu ndey mer na de man nag yëguma bu ma ci feeñ waaye mais kontaanul de mais yow noo ko mën a barki démb lim la fi yebbil ak tay yu ñak solo yi ay deureum yaay yi nga ko jox foko tek teg fekk na amoko parce que yaangi joggé ci xew bi lu mat 10 à 15 personnes plus li nga xamné ne doon se revenu yépp dugal nga ci des fois sax mu nekk crédit mbokk yi lolu du dimbalante ñun nak ñoo mën signé pacte bi fi première édition escape Urbam ñu effacer ko suñu biir ñu ne noo ndayale ndayale sax aayu mais noo lekku nday ñu de suñu koñ dindi nañ ko nda ah, nabu dëgg la wala du dëgg ñun suñu koñ dama leen ne ndayale wii mais lekku ndey noon amatu fa HLM Grand Yoff troisième tranche dem leen ngeen vérifier ci ku xewle nag lu ñu mën dimbalee la mais fii sabilillahi sa doom nag man lu ma fekke ku nekk xam na lu baax yonent bi dafay wax ne tahaadu tahaabu dee leen mayante ngeen soppante tey koo jox taraanga mu dugal ko ci armoire am saa yu armoire bi dina la xalaat te bu la xalaatee da lay gën a bëgg lu baax lan mooy gàllaaj bi gën a baax ci njëkkee lu dëgër ak goro bu ñàngal foo toll rek de ko ko tabax saa yu xëyee rek yaay yaa ngi toog yaay yow sa kanam gii est que baa nga koo xaaral ma ñëw daal dindi 10 000 sànni ko ñun maire yii ku bëgg gërëm la dañu may xaalis sa njëkkee léeg-léeg coupon bu rafet sa jëkkër jëndal la ko du ko yëg nga rocc ko ndànk ne ko ñawalkat parce que man sëy naa ba pare te yow mii dama lay jaay il nga am jëkkër mais yooyu mooy yi nga xam ne mooy dimbalante ak nag bi ñu wax sànq monsieur le maire mooy ñu jéem wut loo xam ne dañuy liggéey ay financement waa DER bi milliards yi ñuy dégg wala yéen jot ngeen ci milliards yi cinquante eh, eh, financé nañu cinquante million financé nañu nii quarante millions finance nañu nii eh, li ci gën a tuuti ñoom ajaama jigéen yéen ñaata ngeen am ci financement yi yéen fekk naa waa soppe Rasulullaay nag yéen ñu mën a lijjanti deer ngeen waaw ndax léeg-léeg ma gis ci groupe bi nga naan waaw remboursement bi kat tey la la cinq waa ngeen góor góorgóorlu kon nag gisante leen ak ñii te xam naa ne ñàkkul ñu nekk si yéen fii ñoo xam ne loolu xam nañ ko ñu liggéey liggéey boo xam ne bu ñu paree duñ ko yàq dañ koy jëriñoo yonent bi sallallahu alayhi wa nag daawul xeeb liggéey waa ji dafa ñëw ne ko ñuy nuyoo di nuyoo di nuyoo di nuyoo di nuyoo di nuyoo ba egsi ci moom mu ne yonent bi asalaamualeykum yonent bi nag dafa bëri woon kersa affaire boobu daal jaaxal ko

ku toll ni Seydina Mohamed loxoom yu nooy yooyu xeeñ parfum lool nga xam ne ku mu nuyu doo génnee doo laaj kenn doo wax kenn yonent bee ma nuyu mais xet bi moo koy wax nit ñi sallallahu alayhi su rombee ci mbedd mi ku romb ci mbedd mi dina xam ne fii Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa fi romb ma di ko nuyu mu téye loxoom ñu woo ko dañu sincère nag lu xew. dañ koy péncoo ñu woo ko ne ko yow sëriñ bi lu tax yonent bi di nuyoo nga bañ koo jox sa loxo mu ne leen loxo yi dafa ñagas loxo yi dëgg sax a ko tane ndax ni may liggéeyee di dagg ci garabu tàndarma yi dafa xotti loxo yi xotti loxo yi ba loxo yi ñagas ma rus ko koo jox ak ni loxoom yi nooyee mu koy gaañ wala mu koy gêné loolu rek moo tax nuyuwuma ko allahu akbar ñu ñëw wax ko yonent bi yonent bi ne woowal leen ma ko mu ñëw mu ne ko waaw lii lu ko waral mu ne ko xam nga dama yore kër sama frère bi ndeysaan moom it mu bëgg la lool tout le temps mu ngi si jàkka ji mu ngi julli mu ngi woor mu ngi naafi la njabootam aussi maa leen yore waale moo tax guddi bu ma liggéeyee bëccëg bii pour sama kër ma liggéey moom it pour këram yonent bi ne leen eh jege leen ñu jege mu ne leen axuhu xayrun min mu ne boroom loxo yu ñagas yi moo gën borom loxo yu nooy yi nga xam ne mu ngi toog ci jàkka ji gorul yetul liggéeyul naan kurus gi rek ak téere bi rekk ak der bi kese yonent bi wëlbati ku xëcc loxo yi di ko raay ci lex bi di ko raay ci yaram yi naan loxo ngi nii yadun yuhibbuhullahu wa rasuluhu loxo ngi nii yu yonent bi bëgg ak yàlla borom bi yu yàlla borom bi subhanahu wa taala bëgg akub yonentaam gis ngeen kon ndekete nit dafay liggéey boobu nag mu xam góor la mu xam jigéen la ñëpp ñoo ci ku ku ko ku ko ku ko ku ko yittewoo rek day dagan ci yow famshu fi manaakibihaa wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur yàlla nee na ngeen di dox di lijjanti ji di sàkku courant mu coupé wala wa mu ni len leen ngeen di togn toñi di gorlu di am lu ngeen wut lu ngeen sakku mais mu nek sakku fagu bu dagan te amul ya pas de sous-métier parce que yalla sallallahu alayhi Wasallam, sallam nak nag yi ñu xif fofu dimbalante rek fofu sa am de kenn def dara yonente bi dañ ko don wutal pilianam rek mu tok <laughs> ñeneen ñi di liggéey ñuy ñëw di ko nuyu rek di di di di di dellu <laughs> di sëgg comme waaj ni def déedéet amul woon ci yonent bi ñu ne léegi dañu kii ne am naa gëléem ñii ne ñun ñooy rendi ñii ne ñun ñooy fees ñii ne ñun ñooy dagg ndawal bi ñii ne ñun ñooy togg mais am na lu des lan moo des lan moo des safara bi safara bi lan la woon boobu gaz amul kon matt la yonent bi ne bàyyi leen ma kon man ma dem taxani allahu akbar mu dem taxani yenu matt bi ci boppam indi ko boyal ko ñu teg ci ni togg ñu lekk gis ngeen tëraayam bee ca madinatul munawwara biddantiwul tëdd di nelaw mayu ko ko moo tax ba muy julli di julli di julli ba tànk yi neew yi ay sene lu tax يو bu ma jaaxal yow yàlla inna fataxnaa laka fataxan mubinan li yaxfira laka allaahu maa taqaddama min zanbika wa maa taaxara yàlla baal na la lu njëkk ak yu mujj bu guddee nga fanaanee julli ba bër sët di jàng alquran ba bër sët boo xëyee ci liggéeyu famille bi parce que yonent bi da doon jàppale ay soxnaam ci seen kër waaw tonton yéen di ngeen dem marché di nduggi

ma ngay nelaw bu ko yee naan ko robinet bi ubbi na jógal nga root ndox yi jaamu yàlla la xale baa ngi jooy moo koy yendoo moo koy nàmpal moo koy fóotal moo koy defal lii moo koy defal laa te bu yeewoo suba mooy xëy toggu ndékki li te yenn saa yi ndékki loolu muy togg la koy jënd moom moo koy génne gis pochetam am na ñoo xam ne yéen gaa bokk leen ci yéen waa Scat Urbam mais am na góor ñoo xam ne suñu demee julli ji ba ñu fa ba pare du ñu ñibbi de parce que bàyyiwuñ fa depanse su ndékki du ñu mën a ñibbi ndeysaan bu dee ku mel ni sama mbokk ustaas yi ñuy seet ndax amul fu kaamil am ndeysaan eh, ay imaam ñun sonn nañ de ndeysaan ndeysaan ñun ustaas yi ndeysaan muy wut ndeysaan fu kaamil am ndax eh, am na ku ko wax nee nañ conférence bi ma njëkkee la mu ne ñaar a gën a sonn ci senegal mu ne sëriñu daara ak ñuy yóbbu nit ñi aji ñu dem aji sëriñu daara imam bantey ndongo ya nekk seen kër yëpp ku leen di dundal ku leen di faj est que dina dàq nit pour papaam fayul walla yaayam fayul ñemewu ko te yenn saa yi du ko am yenn saa yi du ko yor te war nañoo ndékki war nañoo añ war nañoo reer war nañu moo tax ñi ci koñ bi il faut am ci ñu volontaire nekk ay ndeyu daara mbokk yi wa taawanu alal birri wa moo tax ñu ne al muminu lil mumini kal bunyaanil marsuus gis nga tabax bii lu ko fi bàyyi xeer ak lan ak lan ndox ak lan loxo yu xam nuñ koy defee ak architecte bu koy tracer ak maître de maçon bu karo yi jotee ñu ne woo leen carreleur bu plombier bi jotee ñu ne woo leen plombier bu électricité bi jotee ñu ne woo leen ku def électricité bu peintre bi jotee ñu ne kii for fer forgé yi bu jotee ñu ne nañu seeti loolu loolu yëpp la ñuy dajale dajale ko nag pour mu nekk mel nii tey àdduna lépp amul dara dara dara dara वसल्लम मोहम्मद रसूल سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه الله مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا وبالسابدين دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يالنا يالا نانغول لب في لا ñuy wàccee ñu ne daal kon nañu dimbalante ci jaamu yàlla nag foofu laa gënoon a bëgg a waxtaan mais nag yoon la bu waaxu si dox bu doxul bu dox dul jeex wax su du jeex ren moy première édition ñan nañu yalla borom bi subhan tay moy ren moy première ñan nañu yalla dewen ñu def deuxième édition ñu ñaan yalla 37e bi ñu ne ko na ko aj ak 50 ans la fi yem na ko yemal ci 37e bi lu jafe la waaye mën na su ko defee ñu jàppalante nag ci jaamu yàlla musalante yi tamit xam ne àdduna bi day jeex te àllaaxira ñu ngi ñuy xaar waaye oustaz nañ leen jàng nañ leen jàng jigéen ñi fexe leen ba ni ngeen mobiliser ba organiser lu mel nii ndax conference na ngeen jàngi ku amul ku mënul ñëw fii ci daara ji wutal oustaz walla nga dem ci cours yi ñuy joxe même en ligne amna parce que problème mu xam-xam amna Sénégal man nak ma leen koy wax ndax dama ko dund ndax dama yob nit ñi mak di leen tester ci fatihatul kitab mais yenn say ma dajale lu ma téméré nit 80% bi sen faatiha bu baax damay tiit te boobu ñu ngi julli julli nañu 50 ans né nañu ñi julli 40 ans te la salaata liman lam yaqra suratul fatiha ku sa fatiha baaxul loo mës a julli kon nag nañu nañu nañu càmbaraat àlluwa te ñu xam jóge ci fattaqullaha mastataatu dem ci fattaqullaha haqqa tuqaat ni ñu joge ci kutiba aleykum siyam nañu dem ci al alxajju assurun ma'lumat فمن فرد فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد إيه التقوى تقوى بن يوار نفوف أج دو دار بدون غير رجل يالا دفني من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كور بمو متك فين كوتك دفكو نيمو كو وارا دفي ني الحج المبرور ليس له جزاء الى الجنه اجو نانغو اجانا تي لي نوي ديف ييب ديفنا نينك سال تاخول ديفنا ني بوكاري تاخول ديفنا ني بغ كي تاخول مي لي تاخ نيو ديكو ديف ييب موي ني ديم اجانا ريك بو ني ديوي يال نانكو يالا ديف شريف اوبنا ديف بومو ديم نا توك ان شاء الله تعالى نعطيه الكلمه اما بعد الصلاه او الان اذا توافقتم باو شريف نطلب منكم السماحه ان شاء الله سنعطيكم الكلمه اما بعد الصلاه او قبل الصلاه لكي آه، نجح من التسمى يعتمد دو دمي نونو لا آه دي يوم بكر آه، شريف من يعتمد الشريف من يوم نجيس كوفي مسجد تسلي تسلي معنا أيوة خلاص تسلي معنا يبارك لو تسبارك ما جوخ لنكو أدينا ستو يون ننتي بكت fu mu toog nañ ko dox jox addiya waaw ba pare nag mu ñaanal ñu ndax ñoom ñooy seen xaritu maam su ko defee mbokku jullit yi maa ngi leen di jéggalu góor ñi maa ngi jéggalu bu baax a baax a baax man nag xam nga sama waxtaan sëriwul comme waxtaanu oustaz parce que man léeg-léeg ma dugal ci rek suñu affaire yu jigéen ñi noonu waaw su ko defee soxna yi mbaa kontaan ngeen sama soppe yi mbaa kontaan ngeen ajaratu ndey jóob ana nga mbaa kontaan nga moom moom sànn sama sama doomu ndey boobu monsieur le maire nag soxla woon naa ko ana ko fi nekkal ana meeru meeru ngaay maajoor yàgg fi nekkal monsieur le maire day campagne ñëw sama kër am lu ñu waxante ca laa ko mujjee gise ba élection yaa ngi jub si ay waay monsieur le maire baa ngi koy xaar ba mu ñëwaat sama kër wala mu ñëwaat suñu koñ bu ñëwaatee suñu koñ ñu ngi koy xaar keroog lañ ko gëj a gis ah na ko dégg ne ko si Seyda nee na <laughs> am na yu ñu waxante woon keroog laa ko mujjee gis moo tax bëggoon naa bu ñëwee xam nga ne ndeysaan dafa yaru te ndey saan moo tax kenn xamul noo koy def waaye kon daal mbokk yi comme kontaan ngeen man moom kontaan naa ndax seen conférence bi kat civilisé ngeen yéen waa Scat Urbam rafet ngeen yéen waa Scat Urbam dal ngeen yéen waa Scat Urbam yaru ngeen ndax xam naa ne fàtkan moom fu mu bokk ñu fa bokk nii rek la ñuy mën a mel ñuy ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala oustaz déwén yàlla nañ ko fekke kenn bañ a manqué buñ fi jógee képp ku fi indi soxla yàlla na yàlla faj soxla bi te nag yàlla may ñu biyee màkk ñun ñëpp ñu dem ziyaara ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam